ku xam na cerno baati daa def déglu ma ndanga roy ko moo di aarif ba muy xale la daldi ànd ak bamba di roy jikkoom yaak jéegoom yaak tànkam ya bamba ko jàngal moo ko def kaang foore jàngal na ay foore tumas la doore ray saayir sa baatin ba fu mu yenee ku mu fa bi ba xolam bu jébbalu ba ak tebeem ga ak dëddoom ga ak ñambaar ga ak yaaram ga ak sàmmoom ga ak maanoom ga ak doyloom ga muñam ga ak wàkkirlu ga ak wóoloom ga asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi ñu topp ci télévision Mafatihul Bichri ñi ngi am mbégte ci jàkkaarloowaat ak yéen di ñaanal jabootug sëñ Tuubaa gépp jiital ci Cheikh Sidi Muxtaar di ñaan suñu borom gën a dëgëral taxawaayam ba bépp naal boo xam ne naalal na ko lislaam mu àggale ko fu kawe njortam te mu ànd ko ak nun ñu am mbégte it noonu naka noonu di ñaanal sëriñ Abbas Mbacke mi nga xam ni moo fi toog jotaayu borom Daaru Muxti yàlla gën a dëgëral taxawaayam ba bépp naal boo xam ne yéene na ko liggéeyal waajuram borom Daaru Muxti mu def ci lu kawe njortu lépp it mu ànd ko ak nun mbokk yi am nañu mbégte ñëw ci wàccaayu màggalu Daarul Mawti xam ngeen ni fukki fan ak juróom ci nisu Shaaban lay war a doon mu toll fukki fan ak juróom ci baraxlu ñu am mbégte nag di waxtaane jëmm jëmmi borom Daarul Mawti lenn ci ay ak dundam lenn ci ay jikkoom lenn ci meloom ñu ànd ko nag ay boroomi xam-xam sëriñ Xaadim Njaay tasawuf ak sëriñ Mahfouz Mbàkke di setu borom Daarul Mawti xam naa ngir dugg ci waxtaan bi rek damay bàyyi ak sëriñ Mahfouz mu nuyoo bu ko defee suñu xaadim nuyoo rek ñu dugg ci waxtaan bi sëñ Mampus ñu bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi bismillah barkeb sëriñ Tuuba baada audu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barki borom Tuuba eh, gannaaw ba ñu waxee assalaamu taala wa barakaatuhu eh, ñoo ngi nuyu mboolem ak fun mën nekk di nu teewlu ci émission bi euh, jiital nag ci mboolem sunu nuyoo ak sunuy ñaan ci jiital sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko fi te wéral ko te mottalil ko mboolem ay naalam fa àgg foofu faaw ko njortam di ñaanal sëriñ Abbas Mbàkke yàlla na ko yàlla guddal aw fanam te wéral ko te yokku te matalal ko mboolem ay naalam ba mu àgg moom itam foo ko njortam ibnu sëriñ moo daaw balla muy ab xalifaam di ko ñaanal yal na yàlla e, yokk ko fan wu te defal ko ak wér ak mboolem njabootu sëriñ moo daaw balla di ñi nuyu itam mboolem ñi nga xam ne ñooy waa Bichri TV di leen nuyu ñoom ñëpp waaw te ne ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di sëñ maam Thierno mi sëñ maam Thierno Diop seen xaadim njaay tasawuf ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax eh, ak di nuyu daal mboolem jullit rek fu mën a nekk te di ñu seetaan eh, ñuy leeral itam ne ñoo fi ñëwee ci ndigal ak kàddu waa comité d'organisation màggalu Daarul Muxti te ka nekk ca bopp ba jiite jiite ko di Serigne Bassirou Mbacke ibnu Serigne Abdoul Quddus ak njabootuk sëriñ Abbas mu ci tuddee itam sëñ Xaadim Mbàkke mu doy sëñ Jiili mi nga xam ne sëñ Jiili Sàll ak sëñ Abo Mbàkke sëñ Fàllu si ñi nga xam ne ñoo communication bépp di ci yàlla defal nu tawfiq ñu dugg ci ci jàmm ci bismillahi rahmaani rahim te génn ci ci jàmm ci alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Mahfouz Mbàkke ñi ngi am mbégte ci ñu ànd ak yow jotaay bi sëñ Xaadim xam naa hmm. ñu bàyyi la nga nuyoo waaw aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa wa sahbihi wa xadimihi wa sallim maa ngi nuyu sëñ maam Thierno ngi lay nuyu baax yow mi nga xam ne yaa dale jataay di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne di nuyu Cheikh Cheikh Mouhamadou Mahfouz di ko ziar bu baax di nuyu sëriñ Serigne mu mënu fi fekk nga xam ne moom sunu wéttal la woon ca Lamp yàgg di jàmbar bu baax di nuyu mboolem waa kër gi di nuyu ñëpp xanaa di nuyu mboolem koo xam ne dana la topp ak fu mu lay toppee di la ñaan yàlla liggéey bi nga xam ne yéen a ko defee nag sunu borom nangu ci barkeb Serigne mu mi tax ngeen di ko jëf te defal leen ci lu koy njort jërëjëf. jërëjëf Serigne Khadim ci nuyoo bi. ñu ngi am mbégte tamit ànd ak yow jotaay bi ndax saa buñ la woowee rek nga am e, jàppandik ñëw fii te itay bari na rawatina jamono ji xam naa niñ ko junjee woon ci ndorteelu émission bi rek mooy e, borom Daaru Moxti moom la ñuy waxtaane waaye nag xëy na jotaay bi e, waxtaane jëmmi borom Daaru Moxti lépp du ci xaj waaye dañuy tànn lenn ci ay jikkoom rek ak ay meloom waxtaane ko hmm. ma bëggoon rek sëñ Mahfouz nga indil ma maanaam askanu borom Daaru Muxti nga nga dikkal ma ci bismillah barke borom Tuuba eh, xanaa ne gannaaw bañ doole waatee sant yàlla julli ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam doole santaat Serigne Touba muy sunu yaakaar yi tey ak ëllëg noo ngi jàllootee fas yéene jël mag mu màgg koo xam ne bu ma ko doon tënk di ko di ko defal synthèse damay wax ne mooy lislaam mooy moom maam Cerno Birahim lislaam nag bu ma ko waxee aajo woon a leeral euh, ci li xam ndax mission la boo xam ne mission bi universelle la yàlla jaare la ko ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa mu jëmale ko ci mbooleem jullit ñépp loolu buñ ci doon ko buñ ko doon seet ci alquran dañuy wax ne xëy na mooy tolloog laaya ji yàlla naan wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nazira dañ laa yónni ci mbooleem doomu aadama yépp ngir nga jox leen mission bi nga xam ne moom laa leen sant ndax yàlla kat moo sàkk doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf am ay am nag lu foo xam ne yoon war yoon wu mu ko rëddal bëgg mu jaar ci lool yi nag la koy laaral nga xam ne mooy yombal yoon wa mooy lislaam boo ko yonent bi indee nag mel ne daa fekk jullit ñi rek mel ne daa fekk nit ñi rek mu jox leen ko ña gëm te fas yéenee aw ca na yàlla bëggee fas yéenee teet mbooleem lam tare mu bégal leen ci wan leen ne lii ngeen fii ngeen teg seen tànk bu ngeen ko teggiwul yéen a ngi jëm yéen a ngi jëm mu ngi leen jëmee ci àjjana waaye ña nga xam ne tam ñooy way wedd ya bañ a teg seen tànk ca yoon woowee mu xupp leen ci xamal leen ne yoon wii bu ngeen ko teggiwut seen tànk bu ngeen ci teggiwut seen tànk dana daw ak yéen ba tàbbal leen fële te mooy sawara loolu am na ba tey da nga koy mën a gis ci alquran ba tey inna alladina amanu daanaka joo gis ci alquran inna alladina amanu wa amilu saalihaati joo gis ci alquran la ca topp moom lu neex la waaw inna alladina amanu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula hmm. xam na ajjanay firdawsi la yàlla di foofu waaye inna alladina kafaru joo gis itam la ca topp neexul inna alladina kafaru sawaun alayhim wa antartahum am lam tundirhum laa yuminuuna xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adabun adim boobal mu tar rek moo ci topp inna naaru jahannam bu métti rek moo ca moo ca tegu kon nag loolu euh, buñ bëggee expliquer nag l'islam ana l'islam lan mooy lan la lan mooy composante lan lan lan moo composé lislaam da ngay mën a wax ne ñaar rek la ñaari yëf rek la mooy bi yàlla sàkkee doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf dafa jël ñaari yéen yu diis diis teg ko ko benn boobu mooy nga xam ne man maay sa boroom maa la sàkk man nga war a jaamu te man nga war a wéetal muy benn ba xëy na muy tolloog ci alquran wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun ba ca topp itam di dama bëgg nga dundal suuf si te loolu ba tey boo ko xoolan ci alquran day mel na kon yàlla dafa jël doomu aadama def ko muy ak kuutaatam ci kaw suuf ndax moom moo bind suuf moo ne xalaqa samawaati wal arda fi sittati ayyaam moo bind asamaan ak suuf ci juróom-benn fan donc wàccee doomu aadama ci kaw suuf te mi ngi ko bind ci suuf lépp loo xam ne matière la bu doomu aadama war a soxla woo diiru ak dundam ci kaw suuf itam yàlla def ko ci biir suuf bu ko neexoon ba mu tabaxee asamaan ak ba noppi da tey boole ay gratte-ciel boole ci leneen ak leneen waaye defu ko dafa defar matière bi rek jox la xam-xam bi ak kàttan geeg lépp bàyyee la ak fi nag ne la dama bëgg nga dundal suuf si kon loolu ci wet googu buñ ko doon seet mën nañoo wax ne yàlla yee kon doomu aadama mooy xalifatullahi fil ardi noonu la ko waxee yent eh, yàlla daawud inna jaalnaaka xalifatan fil ardi ba tey ba muy wax ak malaaka bi muy bind maam aadama inni jaa'ilun fil di xalifa qaalu ataj'alu fiha buddunata mhm. kii na waaye pour gagner temps ñu leeral foofu rek ñu ñu ñu xamee ne kon doomu aadama mooy xalifa bu yàlla ci kaw suuf kon ñaari mission yooyu la ko yàlla jox na dundal suuf si na ko jaamu te wéetal ko xam ne mooy boromam jaamu ko te bañ ko bokkaale ak dara waaye itam dundal suuf si loolu nag buñ ko doon xool ci tënk bu gàtt ci alquran da ngay wax ne wa btaxi fii ma ka allahu daara al axira na nga fàggul sa ëllëg waaye bul fàtte sa tey na nga fàggul yowmal qiyaam mm-hmm. waaye bul fàtte sa àdduna loolu nag kon dafa laaj doomu aadama bi nga xam ne moo war a mission boobu mu xam ana moom fan la jógee ak fan la jëm ak lan moo koy xaar ak lan lañ bëgg ci moom aw yoon boo ci waree bu war a dem voyage te mosoo jaar ca yoon ba dana laaj balaa nga dugg ca yoon ba nga xam kilimati ki euh, yoon bu soriwaay ba climat bi nu muy mel tàngoor lay ëpp muy def wala sedd lay ëpp muy def dana laaj nga am yóbbal boo xam ne xëj na boo xiifee man caa lekk ba doo loru boo maree gazalik mm-hmm. am làmp boo niitoo bu lëndamee ak ay ak say jumtuwaay loolu yi nag looloo waral yàlla yenent bi fi ma a ñëw bu nekk yàlla yebal la mission boobu dala la mës a jox te mooy lislaam ak donte baatub lislaam ci yenant bi sallallahu alayhi wa lañ ko gën a miine sax nag waaye te réewut ñoom ñëpp dans le ñoo bokk benn mission bi nga xam ne moom lañ doon nit ñi te mooy lislaam bi yenant bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee nag moom nag ñu jox ko mission bi gën a mat mu tudd hmm. nag lislaam inna diina inda lislaam lislaam joojee itam ginnaaw yenent yooyu gaa yu baax yi fi jaarat ñëpp di ay mujjadid itam loolu yi rek lañ fi dikkoon di ko yeesalaat te mooy diina jooju Serigne Touba suruñ sëriñ bii duñ duñ duñ ci moom lañuy jël exemple bi leen Moustapha nawaytu maa yu jadditu sunnat sunnatuhul xarra wa inni ahmadu wane na ne kon moom dafa ñëw ngir yeesalaat lislaam ci moom euh, yeesal googu mu ñëw nag ngir yeesal lislaam bi euh, dafa bokk ci méthode bu jàngale méthode jàng jàngale ñaari méthode la théorie ak pratique euh, euh, théorie mooy dañ lay wax ne la nangam boo ko bëggee def nangam nga koy defee nangam nangam nangam mm-hmm. pratique nag mooy damay def nga gis dëgg la waaw pratique nag mooy méthode bi gën a gaaw Sëñ Tuubaa nag méthode yëpp appliqué na ko mm-hmm. waaye bi gën a gaaw ci doomu aadama bi nga xam ne kii nga xam ne am xelam neexul sax mën na koo xam mooy pratique loola waral mu jël maam Cerno def synthèse am moom sëñ waa ci maam Cerno Ibrahima maanaam maanaam tënk boppam nga xam ne ko ko bëggoon a roy tey hmm. dafa jël boppam jël li ci ëpp solo tënk ko ci maam Cerno Ibrahima nga xam ne ni mu bëgg ab murit saa dex doxe ko hmm. noonu noonu euh, moom la jël tënk ko def ko ci maam Cerno Ibrahima poste ko muy son royuwaay hmm. waaw moom kon maam Cerno mooy synthèse u Sëriñ Tuubaa ma expliqué mu gën a leer ndax lu ci nekk itam li ci gën nga jël ko ci cosaanu lislaam moo gën mm-hmm. ndax ci lay gën a leeree ci bopp doomu waaye waaye ci ci ci ci tënk rek mm-hmm. maanaam euh, nga xam naa ci biir waxtaan bi dan li nga li nga bëgg a indi nii mm-hmm. dana gën a leer ndax bu ñu expliqué lenn ci ak dundam yu ci bëree bëri dina gën a leer waaye ci tënk rek nga dikk ci maanaam lenn ci ci ci ci askan wi mu bokk ak gane ak addunaam bismillah Euh, xam naa boo mayoon tuuti rek. <laughs> bisimilah bisimilah waaw ndax hmm. euh, maa bëggoon rek ngir nit ngir doomu aadama yi rek ñu xam. Hmm. synthèse bi ma wax ci maam Thierno ana lu mu ci jublu. ngir ñu gën koo xam ndax boo seetloo euh, yenent yi fi jaar yëpp ñaar rek lañ indi mooy jëf ak ay jikko yu baax jaamu yàlla ak ay jikko yu baax ndax jikko yu baax mooy matal diinay ab jullit. jikko yu baax yooyu. mboolem nag euh, yonent bi fi mas a jaar euh, baax nga gépp bu baax ci wàll yépp waaye am na jikko boo xam ne ci nga gën a ràññee ko nga xam ne ci la la yàlla tagg masalan mën nañu wax ne ku mel ne say sayidna ibrahim wazkur fil kitaabi ibrahima innahu kaana sadiqan nabiyya mm-hmm. ci dëggu la ko yàlla tagg ko wazkur fil kitaabi ismaila innahu kaana sadiqal waadi mm-hmm. waaw nga xam ne moom ci dëggu li muy digge ci la ko yàlla mm-hmm. waaw waskur fi kitaabi Muusaa innahu kaana nga xam ne moom ci sellam la ko yàlla taggee mm-hmm. ak mel ne yent yàlla ayub inna wajadnahu saabiran ni'mal abd innahu awwaab nga xam ne ci ci muñ la ko yàlla taggee mm-hmm. niki noonu nag comme ni sëriñ bi moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax faw mbiri sëriñ bi dara génn lépp li tubaab di Mm-hmm. mooy diine mooy euh, histoire bi euh, mooy mooy histoire à chaque fois day dikkaat mm-hmm. waaw moo tax sëriñ bi itam faw yàlla tànnal ko ak mission bu diis bi mu yor faaw yàlla tànnal ko ñu ko wër ñoo xam ne si nii ñu nuróog ñooñu ay jukko man dama ci cité ñu ñu néew pour ñu mën a jàll mm-hmm. ku mel ne maam Cheikh Ibrahima Fall kenn wérantewut ak Pastef ñu waroon sëriñ bi ñëpp ku ci nekk ràññeeku ma ci mbaax ci wàll yëpp waaye kenn ku ne am na mbaax boo gën a ràññeeku ko ku mel ne maam Cheikh Ibrahima Fall tey boo ko seetloo ca Pastef mhm, ci la gën a ràññeeku ci la gën a ràññeeku mhm. ku mel ne sëñ Massamba mhm. sëñ Massamba Mbacke nga xam ne ak tabe ci la gën a ci la gën a ràññeeku ku mel ne sëñ Modou Lamine Ngay jamooy lu euh, ci toroxlu akuk dëddu àdduna nga xam ne moom ràññeeku na ci ràññeeku goo xam ne kii man la waaye boo déggee nag moo wax la nag lu tax ñu ñëw la may la maam Cerno mooy seen teesu Sëriñ Tuubaa moom daa mooy modèle bi dafa boole xaqiq sharia ak xaqiqa tax sharia ak xaqiqa dafa ëmb lii ma la fa wax yépp mm-hmm. buñ gën a dugg ci biir waxtaan nag bi dañ ko mën a xam insha mm-hmm. allah mm-hmm. bu soobee yàlla xanaa kon dëgg la xam naa ci loolu li li nga lay taarale ci lislaam am na solo lool ndax da ngay junj rek ni li ñuy wax ci tubaab entrepreneuriat koo xam ni day tabax suñ tubaab bu fekkee ni ci entrepreneuriat la mm-hmm. maanaam day nekk di tabax ñi muy tabax nag bu bâtiment bi mu tabax buñ la ko dee laaj mm-hmm. da indi ay ñi mu tabax teg kooke mm-hmm. nag borom daaru kenn la ca koo xam ni uh, uh, ci ci biir waxtaan wi danañ ci xamee uh, maanaam jëmmi tabax boobu li nekk ci biiram ak ak tabax bi ni mu bindoo suñ xaadim moo ci li sëñ Mahfouz wax mel na ni laytaay na laytaay bu am solo bëggoon Eh, nga dikkal ma ci borom daarul moxti ci ak njëlbeen rek moom mooy kan. Eh, jërëjëf jërëjëf Cheikh Mouhamadoul Mahfouz. Mm. ci ni nga xam noonu la indee waxtaan wi wala ni mu ni mu ni mu ubbee waxtaan wi. bi mm. eh, am na solo lool. boo xoolee ni mu tàmbalee ci Seydina Adama alayhi salaam muy woote ci wàllu tawxiid ba ni mu agsi ci yonent bi sallallahu alayhi muy woote ci jikko ju rafet. Mm. Euh, mën nañu wax sax Seydina Ibrahim ba mu agsi ci moom nga xam ne yàlla dafa nekk euh, da ko wooteloo ci tawxiid mu nekk ilimaan joo xam ne royukaay la ci ñëpp ba ko yàlla joxe cër boobu dindiw ko bi yonent bi dikkee da ko gën a fedd li ne ko toppal sama am Ibrahim day mel ni kon yóbbante boobu la sëñ Tuubaa am ci yóbbante sunu borom ci bu jëm ci jaam yi mm-hmm. mu di ko lijjanti nag di ko defar yàlla dogal mu am njaboot gum àndat mm-hmm. bokk it ci ci ni nga xamee ne moom yàlla da koo may cër mm-hmm. mooy mooy jafe na lool ci ñi fi jaar ñëpp ba ci yonent yi sax mm-hmm. ni yàlla def defal sa sëriñ Tuubaa mu defal la ko maanaam entourage am nga xam ne mën nga cee lim ay bokki boppam fi ne bari na baat bu ñuy wax sax njuumte la naan naan sëñ Tuubaa bu jógee ay bokkam dañ ko weddi waaye ay bokk ma ay ñi nga bokkal bàyyi Mm-hmm. bokk ci ñooñu la tàmbalee. Mm-hmm. Eh, bokk ngi tàmbalee ñi nga bokkat baay soog a dem ci ñi nga bokkat eh, ñi ñi nga bokkat ay ay seeni baay bokk. Mm-hmm. kon bi bi li tax nga xam ne eh, ci ta ci njëlbeenam nga xam ne fukki at ngay amagum wala yu mel noonu sa sa sa rakk gane jamono sa waajur ne la may naa la ko. daa fekk nga am ay jagle yoo xam ne dafa jiitu. ak ay yoo xam ne ay dig ndax ndax yàlla dafay joxe ci ay dig. ak euh, kóllëre ak ay joxe loolu nag ba nag ni mooy li yàlla di wax euh, jàpp leen ci buumu yàlla gi mooy buum googu mm-hmm. mooy misax boobu ma waxoon mooy ahd bi nga xam ne moom la suñu borom day ñett ay baat yoo xam ne mooy technique gu diine diine yëpp moo ko ëmb ci ci ci lislaam fi ne boo xool li leen liyee ñoom ñoom ñëpp weesuut baat yooyu parce que bu dee gëm yàlla gi ku ne sa néeg ngay fanaan ku ne sa bàmmeel ngay fanaan waaye li lay jaax boole ak sa morom dafa am foo xam ne fu yàlla bëgg nga takk nga takk fa bi mu dikkee nag yàlla may na ko mu dugg ci mu wàcc ci néegub jaboot parce que boo boo xoolee tàmbalee ci maam Thierno dem ci sëriñ Massamba dem ci ba ci sëriñ Balla Coro ñoom ak ñëpp ñoo bokk benn ba ba ci waaw ba ci waaw mu ko ba ci maam Cheikh Anta ñoom ak euh, ki nga xam ne seen mag la ñu bokk ndey ak baay te dama wax ne kéemtaan bi yàlla defal sëriñ Tuubaa mooy loolu kii moom dafa fareeg mag muy maam Mamour Diarra mais imaginel euh, Mamour jaar bokk nit ndey ak baay mm. bëri xam-xamu sharia xam-xamu xaqiqa mën a jaamu yàlla nga xam ne xuru mbàkke dañ daan wax xuru mbàkke nga xam bokk yëpp dañuy mm-hmm. daw di naan si ci yow nga wëlbatiku jébul mm-hmm. ci benn topp loolu mm-hmm. bokk na ci karaat maanaam xam xamee na sax gone topp topp mag mais fekkut mag moom ki nga xam ne moo la mag te ngeen bokk ndey baay moom wëlbatiku topp la moom kooku moom karaama la mooy man dama naan kéemtaan bi gën a mag Sëñ Tuubaa mooy loolu beneen bi ci des mooy maam Cerno way juróom bi mu xamee ne euh, yàlla dogal na ne suñ tubaa wax nañ ko ne ko kii mooy wutu yonent bi ndax loolu du lu ree du gént si Omar Fuuti yu ñëw Mbàkke wax leen ne leen kii gane jamono nangam ak nangam jox leen tegtal yu leer te si Omar Fuuti xam nga ko mu doon dem ñu di ko waajal ba àgg sax euh, biñ naan jël jël yaa ngi njëkk feeñ ci Maam Yoro Mbàkke di sëtu di doomi maaram euh, Maam Baara yoroon ko te jamono boobu loolu moo fi am naka jekk dañuy askan woo xam ne jàng jàngale yar dañ ko dañ koo mënoon hmm. waaye nag istiqraar amul woon ndax hmm. euh, maanaam maanaam maanaam euh, sax amul woon ndax politique bu bon politique bu bon ak yëngu-yëngu yu bari bii ci ceddo yi hmm. yeneen gis moo tax loolu tuxutuxoo rek boo xoolee ñoom seen histoire ni ñu jógee fële ci ci bi ñu ñëwee jolof am nañ fa kii parce que jolof dafa nekkoon booba capital boo xam ne am na stable ci politique ci force ci yu bari mais li leen jaxasee ak jolof nga xam ne loolu nit ki li muy incarné ba tax ñu naw la mm-hmm. jox la fa cërub kilifteef boo ci jamono boobu bokkul ak jamono léegi nga jógee foofa dikk Mbàkke loolu boolewaat leen ak ci buuri mbakk yi mm-hmm. jógewaat foofu demaat Poroxaan nga xam ne mooy lieu de naissance Cheikh euh, maam Cheikh maam euh, mm-hmm. comme ni sëñ bi wax euh, modèle la ci Sëriñ Touba man maam Thierno dafa génn Sëriñ Touba fi ne nit ñi dañ naan lettre bi ko sëñ bi yónni woon nangam nangam rëy na lool mm. day histoire rek waaye am na lu ko gën a rëy mm. xam nga yar juddu ci nit ki euh, mu mu nga ay am ay fukki at ak nangam mm. maanaam amagoo ñaar fukki at mooy de vingt ans mm-hmm. nga am responsabilité boo xam ne buñ la jox xam ne yow sampoo ko kër demal rek nga dem daaru tey ji ci sëtam yi mm-hmm. bala ñoo xam ne mooy jàmbaar nga dem xool dugg ci néeg yëpp génne waxambaane yi am fukki at ak juróom-ñett fukki at ak ñeent baayam baayam jël ak njaboot jox leen loolu rek fi ngay xamee jàmbaaru maam Cerno te bañ koy booleeg ñooñu booba ku mel ni euh, sëñ Mbàkke Bousso ngi fi ku mel ni sëñ Abdourahmane Lo ñoom ñi ngi fi mm-hmm. mi nga wax mi ngi fi mm-hmm. ak euh, ñi nga xam ne ñoo fare woon ak ay ay ndaw tuuti ku mel ni sëñ Maxtaar Bintu Lo ñoom te ñëpp mm-hmm. jamono boobu ñëpp maam Cerno dañ doon ñëw ci maam Cerno ndax lu tax mooy bàyyi gi ko sëñ bi bàyyee ak famille bi nga xam ne baat bi moo ko yor ba pare tamit seen mag nekk fi maam ci maam see xam te ñoom tamit nekk fi mm-hmm. te te te yàlla mooy loolu daal mm-hmm. euh, mooy li nga xam ne mooy li gën a ci nga xam ne mm-hmm. euh, maanaam euh, xelum maam Cerno may yi ko sunu borom may jagle ko yàlla jagleel place bi mu am liñ liñ li daanaka rek seexal suufa min naa sama wala xolilaahi masama wa kasaalika waaw wa kasaalika jaalnaakum ummatan wasatan li takuunu shuhadaa alan naas ah. dafa mel ni mooy maam Cerno ah, waaw moom loolu la loolu la loolu la loolu xam naa hmm. loolu mooy li nga xam ne moom da nga ci dugg léegi sax hmm. euh, dama bëggoon rek maanaam euh, sëñ Mahfouz maanaam gane àdduna ak borom daal moo te nga indil ma ko bu ko ñëw ci hmm. gannaaw bu sëñ bi demee ba dénk ko njaboot bi yaatu la lu am solo la ci biir euh, waxtaan bi sëñ Mahfouz nga ñëwal ma ci gane ak àdduna ak borom daal bismillah gane àdduna ak borom ak ak euh, lu am solo la tam am na lu ko jiitu mm-hmm. lu ko jiitu mooy askan bi nga xam ne ci la bokk mm-hmm. ci la bokk euh, balaa may kii sax ma defar parenthèse ci si di sëñ Xaadim mm-hmm. Njaay mi wax ndax noonu mu ko génnee rek dëgg lu lenn lu mooy luy wanewaat ne mooy synthèse gi ma wax dëgg la ndax ay nit boo bokkee ak ñoom nawloonteeg ñoom ci wàll yépp du ci juddu du ci xam-xam du ci lenn loo xam ne si nii am euh, maanaam maanaam maanaam ñàkk maanaam boo amee boo amee juddu am nañ ko boo amee xam-xam am nañ ko ba bokk ñoom lépp waaye lu mel noonu yi mën a am c'est parce que kon am na lu ne ci loo xam ne xëy na moo tax sëriñ ba tànn la loolu mooy synthèse bi waaw loolu la war a yi demee nii mm-hmm. waaw ñoo ngi tuubaat itam ci nit ñi rek ci ñu bàyyi xel baax ne tam waxtaan yi ñuy waxtaan du ab satub maam Cerno wala taalibeem maam Cerno wala ay taalibeem yu toog mhm. di waxtaan ci moom ngir di ko tagg <laughs> dëgg ndax faraluñ di gis kuy toog di tagg maamam mhm. waaw loolu moom daanaka kii wut waaye buñ ko gisee foofu mhm. nañ ko gisee rek ne maam Cerno day dimension spirituelle boo xam ne dimension spirituelle am dafa doon lu kawe loo xam ne adduna bépp mën nañ cee jariñ dëgg la ñu toog fii nag di ci jéem a rotal ak akus néew lañ ca xam ngir doomu aadama yëpp jariñoo ci tàmbali ko ci suñu jëmm yu xeebu yi kon nag bu kenn gis na rek ne ab ab jàmbur bu mu toog fee jàpp ne rek am moroom setam moo toog rek di tagg maamam di suufee ña ca des yooyu déedéet du loola boobu taalibe itam jàpp ne ab mbokkum taalibe moo <laughs> loolu ba tey demee wut noona ñu xamee ne rek njariñ rek lañ ci jublu te fas yéene lépp luñ ci wax itam ñun xam nañ doon te te itam ci dëgg rek lay dem waaw am maa nag moom ka nga xam ne moom xañ na xañ na day nit koo xam ne moom moom moom moom dafa am dafa am dafa am tawatu ay raggi-raggi xol moom ah, kooku moom dafa amut saafara daanaka <laughs> ndax loolu loolu loolu sëñ bi sëñ bi nu mu ko waxee di béydoo ci masaalik eh, isil isil isil xasuur laysa zantifaa'i bi fadli man aasara mm-hmm. man xaasara bi man aasara bi itibaa'i mm-hmm. waaw noonu la ko waxee mm-hmm. eh, mu ne lu ñu toppati isil xasuudu laa yasuudu abada isil xasuudu laa yasuudu siwa na waaw ba bëy du àgg rek <laughs> ci gàttal ndax loo mokkalul moom mokkaloo ko hmm. waaye ba bëy du àgg mu mm, koy daal ci gàttal mooy euh, ku ku ku iñaan moom du du jariñu mukk ci ci ci ki nga xam ne moom la jamonoon hmm. ndax nga ngëneel yi yàlla def ci moom du ko gis ba mën caa jariñ hmm. bu ca yemoon sax mu doy waaye day bëgg sax far mu xara ko far benn yoon waaw loolu moom moo tax kooku amut kon loolu yàlla ñu ci yàlla musal بالغيظ الحسود ليس ذا انتفاع بفضل من عاصر باتباع ولا يسره مدى الأزمان سوى هلاكه بلا توالي kon ñoo ngi jéggaluwaat bu baax ñuy tàbbi nag ci li nga xam ne mooy aw askanam mm. askan di lu am solo mm-hmm. ndax euh, solos askan buñ ko doon seet bokk na ba tey ci sunu aada ñun fii ci Sénégal bu ñu lay tànnloo dañ naan la demal ci sa kër bay diw wala sa wala néeg diw ndax ñoom am nañ ci ñoom yaakaar nangam. Mm-hmm. loola la luñ ci jublu am ci yow ci ñoom ne boo ci jëlee man nga caa jëlee ak njaboot bu baax. dëgg la loolu alquran la wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbihi mm-hmm. walladi xabusa laa yaxruju illa nakida mm-hmm. euh, mooy mooy loolu mooy nga suuf su suuf su teey mm-hmm. nga def ca gàncax nga def ca jiw jiw jiw jiw bu baax suuf su mm-hmm. baax nga def ca jiw bu baax mm-hmm. mu génn waat meññat bu baax waaye boo fekkee suuf su baaxut nga def sa meññat bu baaxut jiw bu baaxut mu génn meññat bu baaxut doom mooy loolu yi nga xam ne kon askan lu am am solo la euh, ba tey dana waral moom askan ñu ñu séentu ci yow ci ki bokk ci askan bu baax ñu séentu ci moom ak mbaax ndax boo seetloo sayyidatuna Maryam mhm, ba ko ay mbokkam jàppee ne daa mooy yàlla bañ jàppee ne daa mooy yàlla bañ ñëwee lañ ko wax maa kaana abuki imra'a saw'in wa maa kaanat ummuki baghiyya mhm. say way jur ñoom xamuñu leen woon ci mooy yàlla ci euh, ba tey dana waral nga am lu la sa jëf mayul lu la sa jëf mayul mooy euh, tey buñ ko xoolee ci alquran wa amal jidaaru fa kaana al gulaamayni yatimayni fi lmadinati wa kaana taxtahu wa kaana taxta taxtahu kan kanzun lahuma wa kaana abuhuma saaliha mm-hmm. nga xam ne ñoom seen baay baax gum baaxoon tax yàlla xëy say sayduna xudar mm-hmm. mu mu moo yëkkati miir booba seen koom moom a feeñ dëgg la mm-hmm. buñ ko xoolee ci Sëriñ Tuubaa bi ñu gën a jege itam da nga ko ciy gis lu bare bare bare dëgg la ndax bis bu set nga gis koo xam ne bu woowee nit mu aw santam yónni ko mu daw yëkkati àddiyaam jox ko te wóor na ko ne lii du jox dëgg la loolu kon misaal mu jege la moo tax ma joxe ko wat ko Sëñ Tuubaa ba tey dana waral itam fu sa jëf mënta àgg suñ boroom eh, defal na boo góorgóorloo tuuti rek mu àgg la la ca dëgg la baax da ko eh, may yóbbal waaw jeex na walladina mm-hmm. amanu wattabaathum zurriyatuhum bi imaani alhaqna bihim zurriyatihim loolu mooy misaalam loolu kon euh, sans plus tarder dugg ci aw askanam mi ngi askanoo ci ñaari askan yi gën a ràññu ko ci ci réew mi mën naa la ko wax daanaka bokk na ci ñaari askan yi nga xam ne askan yi gën a ràññu ko ci réew mi lañu bokk mooy askanu mbàkke ak kokki mbàkke di kër booy juróom bu góor kokki di kër way juróom wu jigéen mm-hmm. buñ doon xool silsila bi nag ni mu demee mooy nga ne bu dee ci askanu mbàkke maam moor anta sali mbàkke mooy way juróom mm-hmm. kon mook sëriñ Tuuba ñoo bokk benn way maam moor anta sali maam Balla mooy way juróom maam Balla Aysa maam maharam mbàkke maam maam maharam mbàkke maam Balla mu mag maam Balla mu mag moo ko jox mm-hmm. mooy moom la ñu doon Habibullah moom moom Habibullahi moom mu di maam Balla Mbàkke Saïd sëñ Saïd Mbàkke moo ko jur Saïd Mbàkke Ousmane Mbàkke moo ko euh, ñoom nag ñoom Mbàkke maam ñoom moom moom bokki Mbàkkeem seen maam ñoom mooy alxaaji Cheikhu Mbàkke moo nekkoon ca Fuuta kon ñoom day mel ne bokk na ci seeni cosaan ay ay ay ay ay futanke lañ maanaam ay ay tukulóor hmm. waaw ba tey sax euh, gëstukat yi saxal nañ ne boo buñ toppee seenu askan dañuy mujj dugg ci ñu weex ni ñu weex ni ci la mujj dugg bañ ko toppee itam wax nañ ne ñu ngi bàyyikoo ci askan wu tudd xabiira bu tudd aadu moo di nal la moo di nal la ñu nekkoon ci waaw xam naa ñoo nekkoon ca ca Murtani ca Murtani lañ ne woon foofa lan bàyyi ko euh, kon bu dee wàllu booy juróom bu demee waaye wàllu booy juróom bu jigéen mm-hmm. soxna Faati Isa Jóob mi nga xam ne mooy woy juróom bu jigéen mm-hmm. moom Njaga Isa Jóob mooy woy juróom mot mm-hmm. faa xuja Jóob mooy moo moo moo ko jur Mataar Demba Jóob moo ko jur Maxtaar Ndumbe Maxtaar Ndumbe Jóob Masamba Ayib Diop moo jur Maxtaar Ndumbe Diop. Mhm. Euh, Masamba Ayib Diop maar ak jur. maar mhm. mhm. <laughs> mu mujjan mujjan. mujjan mujjan mujjan mu ngoog mujjan texe waaw mu ngoog. nga jógee naar bu ñuy wax Abdourahman bu bàyyi ko woon gànnaar. ma ngoog ñëwoon ca ca ma ngoog euh, seen seen euh, moom moom mu moomu sax. daa mel ni sax moom maam Fatou delluwaat ci maharam. waaw ah delluwaat na ci maharam. Euh, ndax euh, moom moom moom moom soxna Fatou Issa ak maam soxna maam Jaara Buso ñoom ñaar euh, xam soxna maam Jaara Buso mooy wayjur sëñ bi sëñ sëñ mag bi mm-hmm. Mm-hmm. soxna Fatou Issa di wayjur ñoom mm-hmm. ñaar ñoo bokkaat mel nu maam mooy Ahmadu soxna ndax soxna Xabsa Lawbe Mbàkke moo jur soxna Fatou Issa moo jur maam Jaara Buso ñoom ñaar ñooñu ñoo bokk Ahmadou Soxna so Ahmadou Soxna Bousso moomu maam ma maam maaram mooy way juram moom mii sax ci li ma doon wax sànq ci askan bu baax moom Ahmadou Soxna Bousso mii wax nañ ne mhm. léeg-léeg bu ma saa dégg noonu day daw ba yëre yu xotti waaw wax nañ ne itam way juram maam maaram gërëm na ko lool mhm. nga xam ne ngërëmal ñaari way jur itam lu am solo la yàlla ba am ne wa qada rabbuka allaa ta'budu illa iyyaahu wa bil walidayni ihsaanan ñaari way jur la ci teg dëgg la kon nga xam ne loolu lu am solo la maam Ceerno nag ñii la bokkal ndey ak baay mm-hmm. ci góor ak ci jigéen bu dee ci góor kenn la bokkal way kenn la kenn la bokkal bu ndey ak baay muy Serigne Modou Faty Mbacké mm-hmm. Serigne Modou Faty Mbacké moom nag ma nga ci bàyyi fi njaboot Serigne Modou Faty Mbacké moom moom lañ tuddee sëñ Dame Faty doomam bu dee ci jigéen soxna Aminata Mbàkke ak soxna Faati Binta Mbàkke ñoom la bokkal soxna Aminata Mbàkke sax suma ma juumut moom lañ jox euh, moom euh, moom lañ jox sëñ Daam Abdourahman mm-hmm. mooy ah. mooy jur way juru sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke Madina ak way juru soxna Mbeen Fall soxna waaw moo moo moo moom moo leen jur moo jur seeni way jur mm-hmm. waaw yaakaar naa daal ci wàllu aw askanam daal. Mm. noo noo mm. noonu la mm. demee. waaw waaw waaye nag bu buñ ba tey man nañ koo booleel muy benn ndax. Ah, askan yu baax yooyu. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. jege yi sami tamit noonu la. meloon ci ak njàmbaar lool. ndax kokki gële daara ji nekk moom mooy moo ko moo ko dekkalaat xam. waaye Mokhtar Ndoumbe bi nga xamee ni sanc na kokki ginnaaw bi kokki dafa. Mm-hmm. deewoon mm-hmm. mooy dafa nekkoon dëkk boo xam ne daa dem ba mm-hmm. mel ni lu gent waaye gannaaw ba jagey sa wax ne nañ ko utalu fas eh, utalu ko soxna su tudd nangam mu daal di dellu ca kokki dëkkal foofu tey kokki gis nga noonu mu mel kon mel na ni njàmbaaru aw askan dana dimbali nit ci ak mbaax ndax day am leeru mbaax dëgg la waaw mu mel ne nag euh, gën àddunaam mm-hmm. euh, mënees na jee taxaw sedd ndax lu bari ca la feeñe mm-hmm. ci digganteem ak sëriñ bi mm-hmm. bëggoon nga dikk ci loolu waaw ak gan ak euh, nag moom moom lu lu lu lu histoire la itam moom lu marqué histoire ak dundam maam Cerno ndax mi ngi gane àdduna yoor yoor yoor yoorub alxames la gane àdduna ci fukki fan ak juróom ci weeru gàmm cent 1862 ci Poroxaan la gane hmm. àdduna euh, waaye nag ña ngi ko defalee ña ngi ko defalee am am ngénte euh, ca euh, Njaabukunda xam naa loolu sax waral na ñu bari jàpp na Njaabukunda googee la gane àdduna hmm. waaye Poroxaan la gane àdduna Njaabukunda googee nag lañ ko defalee lañ ko defalee màggal gi Njaabukunda googu yi ci ñu ko xamut mu ngi ci Gàmbi diggante ak Poroxaan à peu ay quinze kilomètres lay war a toll man mii sax jaar naa fa ci war a toll ci ñaari yoon. Mhm. am na kilifa gu mu doon waxtaanal itam boo xam ne nee na ma na ba dem ba bañ wan ko sax kër ga nga xam ne fa lañ mhm. waaw waaw nga xam ne moom euh, nag euh, la waral nu ngénte ko fa mooy da doon daa tombeek boobu ay way juróom di toxu kon ni ko sëñ boo waxee léegi. ci mhm. noonu yi nga xam ne noonu lañ daan toxoo. am ehm, jugee ci kii Maba waaw ndax ndax laa jëm si waaw ndax mm-hmm. booba daa fekk mm-hmm. wax nañ ne daa tolloog Maba Jaxu Ba mm-hmm. di di di di di toj Paoskoto waaw nee nañ sax ñoom fañ tolloon fa lañ toog di dégg bali eh, waaw nee nañ loolu sax wax nañ ne moo tax maam Thierno bëggoon fetal waaw sama si Musaaka sax maa nga naan keroog ba muy tàkk la bari tàkk waaw loolu laa waral jàmbaar ga maa ko bëgg ca hmm. ca marché ah. eh, eh, ci gan ak addunaam nag ni ko sëñ bi waxee yaakaar naa jot na cee laal tuuti hmm. eh, gan ak addunaam nee nañ sëñ Momar Anta Sali daa waxoon ku tedd ki li ngay sàkku hmm. bi mu ganee adduna wax na ko ne ko li ngay sàkku am nga ko ndax gan gi gane adduna muy maam Thierno Birahim mooy ki la war a jàppale ci liggéey bi Eh, te wax nañ ne booba tam daa tombeek sëriñ waa suñ sëriñ bay jàng alquran te fekk boobu moom itam mi ngi sàkku ci boroomam koo xam ne dana ko dimbali ci mission ba toolu nag ci aaya bi nga xam ne ci la yent yàlla musaa doon ñaane yàlla mu may ko Haarun mu nekk ko yonent ngir mën ko jàppale ci liggéey bi muy wa axi Haarun huwa afsahu minni lisaanan fa arsilhu ma'i ridan yusaddiqni inni axaafu an yukadibuni bi mu tollee ci laaya jooju nee na ci la maam Cerno Birahim gën a loolu nag yaakaar naa lu loolu loolu lu marqué lu marqué yi dundam la waaye lu marqué yi histoire yoonu murid lay tam ndax bis ba mu gënee àdduna la yoonu murid am na ah, ndax dana ko hmm. la nga doon ñaan yàlla na na keroog la sëriñ Mamour ànd naa Cheikh Bamba sa ñaan nga nangu na ki lay yor hmm, hmm. xam naa ne bu doon donay rasulullahi muy sa Omar ba xaliyun billahi ma ngoog waaw ah, noonu noonu noonu la demee kon nga xam ne ak dundam ak àdduna àddunaam marqué na lool Euh, yoonu murit marqué na histoire am waaye marqué na histoire yoonu murit yëpp. wax nañ ne sax ci at moomu ci la Cheikh Bamba mag ma faatu. dëgg la Cheikh ba tey indi na ko waaw. ba tey at moom itam maam Balla Aïcha seen maam ca la faatu. waaw ci at moom wax nañ ne ci la génn àdduna waaw ndax ba muy jógee Mbàkke mm-hmm. moom sëriñ Mamoran Sali mm-hmm. mam baale daa nekk mag moo tax mu wax ma ba jaxu ni ko léegi dama lay boolee sëriñ Mamoran Sali mm-hmm. ma ngoog boobu wax na war naa am juróom-ñeent fukki at ma ngoog noonu demee euh, moom nag waajuram mi ngi ko tuddee wëllëreem wëllëreem xam ne wëllëreem la woon lool ñu koy wax sëñ Thierno Ibrahima Sow Thierno Ibrahima Sow moom la ko ko tedd ki tuddee moom la ko moom la ko way juróom tuddee waaw moom maam Cerno Birahim xam naa ne kon nu taxawal foofu rek ci aw askan dëgg la jërëjëf Serigne <laughs> Mahmoud am solo ci askanu borom daaru wax nga dëgg maanaam jeexital na ci mm-hmm. ak dundam mm-hmm. ndax bay bay yooyu sëñ musaa Ka wax rek mm-hmm. eh, àgg na sax ci wax naan ko xam naa ni boo doon Moussa mu dem Haroun yooyu la mbir yi lay mbir nuroo na xam ni eh, mu gënee àdduna rek noonu nga ko waxee daa fekk muy ñaan boroom baa àgg foofu ci Seydina musaa doon ñaane suñu borom def Mm-hmm. Aaroon mu di ab yonent ngir dimbali ko ci mission bi ko yàlla dénk mm-hmm. foofu it fa la gane àdduna mm-hmm. keroog ba muy tàkku Cheikh Baatam bala la Bamba daw njëkkante ko baayam ba nga xam ne ca la ca la ko jël bindal ko téere boobu ca la ko dafay mu sabaatul ashri sabaatul ashri waaw suñ xaalis mel na ni sëñ Mahfouz indi na lu am solo ci gane ak àdduna ak borom daaru maanaam xam naa bëggoon naa nga dikkal dikkal ñu rek ci lan nga mën a dégg ci gane ak googu moom maam Thierno Euh, jërëjëf waa loolu ba tey day dellusiwaat ci euh, ni diine lislaam mel nga xam ne mhm. mboolem diine yëpp li baax li daa daje ci diine lislaam mhm. téere bi ñëw tënk lépp mhm. soo gisee ni àdduna dafay jeex moo tax yàlla tënk lépp jeexal ko euh, sëñ Tuubaa tamit dikk di yeesal si dafa des waaye yàlla it def ne dootu amati ku fi ñëwaat di def li muy def ndax loolu mu wax ne di wax na ko léegi diinan siwa islami la yuhmadu indal ilahi wa bihi nu jaddidu ñu mm-hmm. damay yeesa si diine day mel ni mm-hmm. ab mu jaddid boo xam ne mm-hmm. duñu wax ne du am waaye mu jaddid boo xam ne day day ñëw ci ndigalul yàlla yàlla boole ko ak jamonoom ñoo xam ne dañu noonu lislaam te duñu doon say bokk ndax jaar fi mu jaar yëpp loolu moom jeex na ku nekk nag mën ngay góorgóorlu ci sa koñ loolu it nag bi dikkee li tax mu nekk li tax nag maam Thierno li ñu la Euh, ak bokkam comme ni bi wax léegi ni mu nekkee ni mu nekkee mutawassit ci wet yëpp su dee bokk kër ndey su dee bokk kër baay ci sëriñ bi kenn ku nekk ci ñi waroon sëriñ bi am na fu mu bokk ak yow lu ah, kenn ku nekk rek am na fu mu bokk yow waaw ah, am na loolu dina may nit dina may nit su fekkee ne yàlla dafay waajal ci yow dara dina dina la may eh, cër ba day mat ndax faaw nga jële fu ne beneen bi jës mooy yàlla noonu la baaxoo di def ñaareel soo xoolee inna allaha astafa aadama wa nuuxan wa ala ibrahima wa ala ibrahima alal alamin duriyatan ba'da min ba'd noonu rek ne société bu ñëw euh, jamono bu ñëw dina am ñu ci yàlla tànn ñoo xam ne dafay jël amaanatu boobu nga xam ne moom la indi ci àdduna te tegoon ko te te waxoon ne dama ko jël jox ko dojeeg nanga bi attanuñ ko ma doomu aadama yenu ko mënut a ñàkk ñu ko yenu biñ demee nag ba jamono bii nga xam ne mooy euh, euh, siècle bi sëriñ bi wàcc ci quatorzième siècle ci hijir bi yàlla jël loola teg ko ci moom yàlla it buy teg dara ci nit day mel ni ab yenn day mel ni néeg néeg du yenoo benn côté faw côté bu nekk dem néeg bi nag ñoo tege ci kaw mm-hmm. noonu la mel mm-hmm. léegi nag soo xoolee fi ne maam Thierno da koy misaal ci diggu mbaar mm-hmm. diggu mbaar nga xam ne day mën nga cee gàll gàll bu ne mu jëm fenn ah, maanaam àtt na ku ne ku ne àtt na ku ne mën na laa yenu waaw dafa mel ni loolu loolu mooy mooy mooy kii bi su ko defee nag euh, ngor geeg jom geeg ragal yàlla gi ñu wax nii ci ci ci ci ci melomaay ci ak doxinam mm-hmm. ak it yem ci sëñ bi mm-hmm. maanaam dafa génn sëñ bi mm-hmm. parce que koo xam ne kii bi nga ganee jamono xam ne ak listixaar nga woon ndax naa dañ ne maam maam maam sëñ Mor Anta Sali ne daf ne sëñ bi soxna Faati mii de li ne ci biir su su ganee jamono su gé daf ne ko su fekkee góor la nga xam ne listixaar la su fekkee góor la sa liggéey bii la nga ci bëgg danga ci ko ci am mhm. kon li ak listixaar la ci moom mhm. ba mu ganee jamono di góor nag mu far ko ko farale mhm. ndax jagle yi ci am ak yooyu yëpp kon kon mel na ni maam Thierno tamit tasut yaakaar que tasut yaakaar ci kaw gane jamono nit ki ngeen bokk benn baay bokk ndono su la neexee tey ñu jàng la nga am sab xam-xam euh, am xam-xam di géej bi ñëpp amub cër ci sunu borom su la neexoon tey nga jéem a xëcc benn cër waaye diirub euh, gane jamonoom ci poroxaan ba ba ni fi maam Thierno bàyyi ko kenn mu sa dégg mm-hmm. euh, ñu mën laa nettali lenn loo xam ne da nga da nga da nga da nga ci jàpp sa gémmiñ loolu nag day daal di mel ni yàlla moo ko jagle la ci moom jagle la dafa moo xam ne yàlla ko jagleel nit mm-hmm. moo tax sëriñ bi nag wet gi nga xamee ne euh, yar na ko ci mm-hmm. bokkut xam-xam fee la teg parce que da nga gis borom xam-xam boo xam ne boo ko jëloon tey di ko dénk dara maanaam dafa am résistance boo xam ne ak force boo xam ne comme li sëñ wax force spirituelle la boo xam ne yàlla da koy jox nit ci ngay ci ngay ci la la yàlla di maye ay anwaar yoo xam ne yi dafay nekk dawaa fex yi nekk majalib dafay dafa ci di jël léegi nag su ko yàlla jagleelee nit nii dafay dafay dafay am force boo xam ne eh, lu lu mën naa mën naa kii ci kaw te daal du jeexital si moom loolu mooy formation bi nga xam ne mooy formation baatin bi ak formation bi nga xam ne mooy bu bitee bu saayir bi mm-hmm. doxinam ci biir hmm. ci ragal yàlla mag jaamu yàlla mag nangam ak nangam kooku wàllug boppam la kenn mënu ko caa hmm. dab ko ca roy te doo ko seen waaye soo xoolee li sëñ Tuubaa jàngale ci nit hmm. maanaam formation nitu diine ak tërbiye gi nga xam ne tërbiye na ko ak li mu bind lépp maanaam mën nga koo jàng ci maam mën nga koo gis mën nga ko tari ci maam Thierno loolu nag bi doon wax naan ab modèle la ko la ko sëriñ bi def maanaam modèle la ci ñëpp ba loolu sax da gis bu dee ci wàllu diine ji rek diine lislaam diine ju set wecc hmm. te xaqiiqa bi mu lëmb bi mu ëmb hmm. mooy ni mu mel ci lislaam mun hmm. la amee murit parce que amag murit a tax nga njëkk ci kër euh, ba 1912 ñu di la soo wax demal bero dëgg la parce que beruñ ko sax mais sëñ bi dafa ko génnewut ci boppam parce que génn ci boppam ah. soo gisee sëñ bi di bind lettre moom naan naan naan Cerno mi nga xam ne mooy sama përgam ndeyjoor génnul ci man ba muy ndaw nangam seeru la waxut li nga xam ne moo moo mooy sabab si li wér la mu ko doon wax ne ko rek euh, naan ko naan ko cerno hmm. koo xam ne boo cër séddoo ñëpp xeeb seen cër yaay mujj a séddoo loolu mooy madd moonu euh, maanaam mazaaya yi nga xam ne moo làqu ci biiram léegi nag fekk fa it nag mazaayal maza euh, zajaayal kira ba nga xam ne bi bi bi bi mu ganee jamono nekk ci ci ci yar bi dafa yem sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi dox na digganteem ak way juróom moom way juróom yi ko jur hmm. xam nga loolu xam nga loolu loolu loolu loolu loolu loolu histoire sax mënu koo indi hmm. ci xam nga loolu lu la hmm. beneen bi ci mooy way juróom bu góor bi ko bi ko meññ moom it di di di di wàccukaay di lépp daf koo bàyyi ak moom waaw nga xam kon nag léegi maam Thierno la dëgg la léegi nag day mel ni boo cuqati naan da ah, nga bëgg da nga bëgg da nga ko bëgg wàññi loolu loolu exactement fi ne mënta génn sëñ Tuubaa parce que génn sëñ Tuubaa wax naa ko ci jaawle fan ye boobu sëñ Xaadim docteur ma nga man leen maam Cerno fekk am koy way di way seen way yu naan warul sëñ dang ma ko mënu ko war parce que bu waree sëriñ bi kon programme sëriñ Tuubaa échec parce que li sëñ Tuubaa teg di ci yare di ci def nangam su maam Cerno duggee ci loolu juddu ci yaru ci nga xam ne ñëpp misaal la comme ni ko sëñ nga la ci loolu su war bëtikoo nag mën caa dëgg la dëgg la xam ne nga xam ne ba mu àdduna ba sëñ bi ni mu demee gannaaw gi njaboot gi ba moom ni mu demee sax. Mm-hmm. maanaam dara lu ci sotti ko. Euh, maanaam boo xoolee. Mm-hmm. maam Thierno day day day balu kënub sëñ Tuubaa boo xam ne. Mm-hmm. bu bu bu wax ne soxla boo xam ne soxob daan na la. dëgg la fu mu ko dóor du du laa xam. noonu la demee fi ne boo xoolee bi bi bi bi caddooy. xam nga bañ nekkee fa gi lu nekk daf koy misaal wa tilkal ayyaam nu daawiluhaa bayna naas gis nga biñ nekkee poroxaan. ca jamonoy xare boobu nga xam ne moo sabab yooyu amoon fa noonu nga xam ne wax nañ ne jamono yooyu muy nga soog ganee nii dikki dañuy tooyal yëre yi wër wërale ko pour bañ poudre yi nga xam ne dafay xeeñ nii accès ci moom dañuy tooyal yëre nii ak pëndéeg yooyu di ko wërale waaw yooyu yëpp dafay dafay jeex parce que am na xare bu ñu war a xare boo xam ne da caa war a bokk hmm. euh, exactement hmm. moom nag kon léegi moom ginnaaw ñooy xar la war a nekk général du du ragal. ku bind ci bal war a ragal. loolu ah, ah. ku bind ci biir bal doo ragal. su ma mënta nekk. léegi nag euh, yàlla teg teg teg nag programme bi ci ci wàllu l'humanité boo xam ne dafay ànd ak non violence ànd ak li ñu tuddee al axlaaqul mahmuda te loolu moo ko mën a moo mën a garder moo mën a téye liñ liñ bëgg. Mm-hmm. li nga xam ne moom lañ bëgg. Mm-hmm. Euh, dëgg la am nañ askan wu rafet. boo xam ne milier na ci maam kokki maam fe maam fe waaye moom li ko yàlla defal wàcce ko ci askan woowu boo xoolee da nga naan ak fay la yàlla dafa am loo xam ne nit ki day jàmm yàlla di ñaan yàlla yàlla nga may nangam jóge ci fure ñi leen di faatu ñi ñu leen rey ñi ñu leen nangam mais après résultat day am mm-hmm. léegi moom résultant la la ci ñaani way juróom yooya wala daaray kokkeeg lépp dafa dikk da naan waaw di résultat bi waaw parce fi ne boo xoolante soo génne woon su fekkoon tey maam Thierno dafa jiitu sëñ Kokki mm-hmm. fi ne maanaam booy misaal tey dafay ëpp li ngay misaal ci ci Kokki parce que temps boobu booba daara alxuraan bëriwul ci réew mi dëgg la boo déggee tafsir almaami nangam nangam li yi leen gën a tax ñu siiw mais am na ñoo xam dañu def dañu def histoire dañu def dañu dañu dañu kii les défis maam Thierno da ko def mm-hmm. dafa dafa dafa def ay épreuve mu relevé voilà léegi soo xoolee responsabilité bi nekkoon maanaam ni mu ko mëne hmm. maanaam ni mu ko mëne loolu euh, loolu du du du du du du loolu li ci nekk hmm. rek soo ko misaalee mën nga koo génn ci àdduna bi ñu di ci roy ci ñu dénk tey àdduna nga xam ne lu mel ni tey ñu ne diw yaay président de la république war ngaa jàng tey biographie hmm. maam Thierno ci euh, ay dix huit ans ay euh, quinze ans ba àgg ci ay trente cinq ans Mm-hmm. fi ne boo ko jàngee rek lépp lu mu la jox rek da ngay xam fi nga koy yore parce que doomu aadama moo gën a jafee téye xool yàlla ni bindee nit ñi xool tey tubaab bi ñoo xoolal li leen di yàlla gën a bari léegi nag nga xool lu mën a téye nit nga xam ne ak it benn bëccëg mooy am doole joo xam ne doole saayir la te te yàquluk benn gis koo xam ne kii dañ naan la kii taalibu sëñ Tuubaa la mm-hmm. gaddu àddi yi ñëw indi ci kër gi kenn kii ci gàddu ñëw indil la mm-hmm. te mu ñu lay fekk si jëppiwuñ la. Mm-hmm. parce que jëflante gi ngay jëflanteeg yow. Mm-hmm. xam nañ ne kee dem na mais wuutewul ni la fi fekkee ak ni ngay jëflanteeg ñoom mm-hmm. maanaam kenn doyul ci yow. kenn jëppiwu la. loolu loolu lu doy na koo xam ne boo ko joxoon tey jii balaa am ak mu jaxasi lépp. mu jaxasi lépp. soo gisee nag ñu naan euh, sa dégg naa sañ Bass di ko wax ci avant bi naan sëñ bi li mu ko joxoon jëlaatu ko maanaam li mu ko dénkoon jëlaatu ko dégg la benn muy loolu mais boo xoolee ne bi sëriñ bi di dox doxam bi ak bi muy tërbiya tërbiya bi lépp boobu maam Thierno ngi ci kër gi bi mu nekk euh, Jolof boobu maam Thierno yor bunt bi maam Thierno bi sëriñ bi di dem boobu mais bi nit ku sampul kër soo ko def misaal ci xale léegi wala ci sunu classe gi nga xam ne ñun ñooy sëriñ sëriñ loo ko def yëf da ngay gis ne ñoom am na leneen lu mu defoon ci ñoom lu bokkul rek ak téye téere bi di jàng. dëgg la parce que jamono boobu caddo yaa ngi fi. Mhm. da nga xam ne ba mu demee tubaab yaa ngi fi amaguñ indépendance. Mhm. léegi nag soo xoolee soo xoolee diggante boobu ceddo yi desi ceddo yi euh, tubaab yi nekk fi mbokk yi nekk fi te booba li fi xewoon mooy sut sutlante ak kéyante ci wàllu njàng. ci wàllu njàng ci wàllu xam-xam. Mhm. mu boole nag xam-xam boobu téye ko ba nga xam ne. kenn yemul Serigne Touba. dégg naa dégg naa mag ñi sax loolu loolu loolu loolu da ngay gis ne lu lu lu. fexe ba ah. fexe ba kenn bi parce que doo ne ki ñu fi bàyyi day sëñ bi baax na de waaye bu xamoon dara de nangam ci nangam maanaam ñàkk googu dara ñàkk sooxe moom laa doon ne soo xoolee. fexe ba wane sax gis nga bi mu demee ci ndar. maanaam wane na ni am kii ñëw moom maanaam néewul ku doy. déedéet ci moom lañ ko ci moom lañ ko xam ne ndaw am na fu muy toll fa am nit ku amagul vingt ans wala ci ngay soog toll parce que sëñ tubaab bi muy teg yoonu mu trente ans la am mm-hmm. sasin la am assasine parce que ah yooyu mawlid nabi min assasine mbàkki wu lañ njëkk mm-hmm. fa def lépp da ko ànd ak moom mm-hmm. da ko ànd ak moom. dëgg la léegi nag kon bu demee ba sëriñ bi jël lettre bi jox ko nii ne ko demal yóbbul ma ko. parce que bu demoon def def yoo xam ne kiiwul munu ko mënu koo def sax. dëgg la mooy li ma la ne la balub daanub sëriñ Tuubaa la. te balub daan moom boo ko dóoree du laaxan. léegi nag loolu yëpp nag dafay dafay dafay dafay dafay. voilà kii la xam naa ni moom temps bi dañ ma dimbali rek ñu xaw koo kii tuuti waaye. mel na sori na lool. Mhm. te xam nga mm, damay dégg ci mag ñi léeg-léeg ñuy wax naan bu fekkoon ni kaasu ataaya la bu mu ko joxoon ba muy dem maanaam fuurut ji sax dogul nga xam ne. voilà gis nga da mhm. ngay dégg ñu naan maam Thierno bi sëñ bi demee bi ñu waxee ne di dem na nangam ki nangam d' accord mën na am ne du 100 pour cent boo xam ne bii bañ neen soxna Fatou Issa moo ñëw ne ko li ñu wax mbaat da koo gëm nangam ki nangam. loolu yëpp histoire am na mais maam Thierno moo gën a wóor ne sëñ Tuubaa dina ñëw. lu tax xam nga saayir ak baatin dañuy xaw mi ngi mel ni nga gént yeewu xool gént gi ni muy demee ci ci saayir du ko du bokk ak baatin. ba pare tamit moom it dina dina dina dina jéem a wane loo xam ne perturbation du am perturbation du am. te léegi ñi nga xam ne ay bokk lañu dégg leen ñu wax seen wax ju leen neex ci ci ci lu mel noonu nga xam ne lépp yow lañ koy adressé euh, fa dana la jax. faw mu jox la. faw mu am lu mu la def. pression bokk yi pression jeex na beneen bi ci des mooy ñëpp eh, rek li ko wër léegi maam Thierno su fekkoon xam na ne sëriñ bi dina du dellu si. Mm. wala mu wóor ko ne dellu si xam nga ñun ci ci mbokk aada nit ak ndeyam ak lu ndey jël baax baax baax am na loo xam ne mënul lópp. dëgg la parce que kilifa nga. Mm. dëgg la te responsabilité bi yow lañ ko jox. Mm. ne kon barada bi eh, ataaya ji mu tegoon. dina dina ko këpp raxas raxas raxas raxas baraada ba. dëgg la sëñ bi bi muy dem ci marax gi nga xam ne baraada bi mu tegoon di war ga ñu tasaare kaasi xular yi di ko joxe ci marax gi sëñ bi toog ak ñoom di waxtaan ak mag ñi ci jihaati yu baax yi. mu leer nañ ci leer. soxna Fatou mii nga xam ne booba suñu war a ko feral que ñun ñuy waxtaan yoonu murit comme ay dof yu jikki salañ salañ déedéet. Mm-hmm. booba bi bi sëriñ dem bi nga xam ne maam Thierno ngi dikk nii suñ bi dafa toog toog lu yàgg mu ne ñokket jóg maam Cerno fekk ko fa ne ko jógal kon am na loo xam ne parce que téléphone léegi war nañ xam ne loolu man na am dama lay envoyé photo nga jël photo bi wax ci li nga bëgg wax envoyé ma ko hmm. kon diggante maam Cerno ak sëriñ bi rawante rawatina bi mu jógee mu naan ko Cerno dara xaju fi boo xoolee loolu ñu rafet yooyu da gis ne euh, maanaam histoire gënu rafet lu mel noonu mu ñëw moom képp ma ànd ak mag ñi jiitu boot ay loxoom mag ñi topp ci ginnaaw fekk booba defar nañ walis yi ba noppi daal yi ci biir néeg ba pare daal di génn ba génn ci biir kër buntu kër gi mag ñi topp ko di leg-legaan mu ànd jëm ca fekk ja nga xam ne tombe am ñu ñu ne am ñu ñu xool ni dégg naa suñ ko solaa dégg suñu ko asuloo ne am ñu xool ne eh maam Cerno nga ne mm-hmm. nga xam ne kon sëriñ bi mooy yëg na ne maam Cerno ñëw mm-hmm. léegi tombe googu dara bëgg ci asaar lépp dañ ko programmé kon léegi maam Cerno dafa dugg ci programme Sëñ Tuubaa moo tax munul munul munul fenn munul am échec mm-hmm. tey bu fekkoon tubaab yi tey ñoo histoire histoire nit ñi gëmul yàlla la lañ suñ ci bindee ay livre dañ ci bind livre yu dul jeex nit ñi di ko jàng mais ñun li nu am dafa mel ni ñu feesalal ñu àdduna ak or ñu dem di taxawal di faratu ci sën ñun noonu la mel mais ay ay nit ñu mat ñu mel nii Euh, mm-hmm. nit ñoo xam ne ñi ñu am responsabilité yu mel nii xam ko kulukum raañ wa kulukum masoon an raayat yi boo ko doon firi tey jii dëggantaan da ngay teg maam Cerno soo ko bëggee xam dëgg la yéen ñëpp ay sàmm ngeen mm-hmm. ñëpp ngi fi ñëpp taalibil ñëpp nangam nañ waaye kulukum masoon euh, wa kulukum raañ wa kulukum masoon an raayat yi kenn ku nekk nag xëy ji damir ji dellu ci yow euh, ah, day dellu ci yow léegi nag yaa ngi soog dikk nag ci fi laal gis nga bi bi di sëriñ Mouhamed Mahfouz wax dama la bëgg wax ne la juddu ñu tuddee ko Ibrahim Ibrahim ji gis nga lépp looy tàmbali ci àdduna Ibrahim am ca samp ba dana dëgër lépp looy def lépp looy tàmbali Babacar am ca nangam ki gis nga dafa am àll yi yàlla dafa def loo xam ne du du asaar gis nga ini jaay lokki li naas imaama faw maam Thierno lu mu juddu ci biir faw faw mu fës ci genn wet goo xam danañ xam ne lii cëram la boo xam ne moom moo ko moo ko yor moo koy moo koy doxal parce que Sëñ Tuubaa bi kër gi Albury ngi nii ci biir kër gi ëtt baa ngi nii nga xam tubaab yi loolu rek lañ soxla te boobu mooy empire bi fi mujj a toj mm-hmm. keroog bi bi bi bi Albury di dikk boobu maam Thierno wax sëñ Tuubaa ne ko Albury ñëw na gawar googu mu ne ko wax leen luy dox lu ñu dox seen tànk mm-hmm. boobu mooy mooy dox diggante boobu formation boobu mm-hmm. kon xam lu bëri bëri bëri xam na ki mu nekkat xam na mooy kan respect bi manqué wul euh, fonkeel gi manqué wul euh, li ko li sëñ Tuubaa def ci moom tabax nga xam ne tabax léppam ba pare nag jox ko wàll islam jox ko wàll islam fi ne boo li sëñ bi wax ci misaal tey boo bëggee jàngat yoon murit demal ci maam Cerno dëgg la demal ci maam Cerno doy na sëkk tey xoolal xoolal xalifaam bi sëriñ Abbas hmm. boo demee tey ji Daaru Muxti da nga naan ñii du ñuy murit da leen a da leen a yurinte biir ba ñu yurintee yàllaa la ba ñu yàlla ba noppi nag lépp lépp sëñ Tuubaa. dëgg la lu <laughs> am solo sëñ Xaadim xam la yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo moom borom daaru mm-hmm. xam naa ni sëñ sëñ sëñ Mahfouz mm-hmm. xam naa moom maanaam li ñu waroon a dëkk sax mooy njàngum alxuraan ak xam-xamam mm-hmm. waaye ginnaaw ba waxtu yi xam naa mi ngi sori dama bëggoon ñu dikk ci ak njàmbaaram ak ak ay xekkam yi daan wax ndax xam naa ne loolu dana feeñal maanaam xam-xamam ak euh, alxuraan ndax ñàkk jotaay yi ci kanam ci kanam euh, ke bismillah kon de xanaa moom dañ cay laal tuuti ci lu gàtt rek mm-hmm. moom ci njàngam ndax mm-hmm. njàng ndax euh, xam-xam moom bokk na ci li ñuy séenoo ci doomi soxna mm-hmm. sëñ Xaadim maa ngi koy sant bu baax ndax dama dama li ma li ma dama dama nu ma ko waxee sax maanaam maanaam expliqué na ma. Mm-hmm. mbir mi moom moom ni mu ko expliquer dans la fond comme si moom da ko dund. dëgg la. Mm-hmm. waaw xam nga loolu lu importance la. dëgg la ndax nit ki xamuti aaya xamuti baat. Mm-hmm. xamut nañu organiser conférence ak leneen leneen waxin wi fi ne baax na ci moom kooku fi ne mm. kooku moom dana ko yëg-yëg boo xam ne dana mel ne moom daa fekk yëf yi di ko dund <laughs> loolu loolu am solo da ngay def am na solo sax ah, waaw waaw duñ koy leer leen nii xam nga da koy teqantal bu baax nga xam niveau bi yomb xam waaw waaw waaw parce que mm. histoire yi moom euh, histoire yi la xam nga lim li ci biir la waaw nga yoonu murid dama jàpp ni ni ñu koy expliquer ci lu terre à terre moom gën nga koy expliquer yoo xam ne voilà ni muy def daal am na solo lool mu ngi ci dimbali ñoo ngi la ciy sant bu baax a baax xanaa kon am njàngam uh, alquran ak tarbiyaam moom ba tey du génn li sëñ bi doon wax rek maanaam mm-hmm. suñu waxee daa ruubaat daa duggante fi ne ah, te lépp di benn wax mooy li ma wax ne fi ne maam Thierno mooy synthèse ba tey génn guñ loolu fi dëgg mooy modèle bi rek moom ngay mën nañoo far waxtaan ah. loolu daanaka rek ndax ne dëgg la génn gu suñ tubaa ji dara mm-hmm. suñ tubaa ko jàng alxuraan moo ko jàngal xam-xam moo ko tarbiya kooku koy génn ko ci dara kon dëgg la waaw euh, du ko jàngal alxuraan ba noppi euh, daal gëmum ci xam-xam Mm-hmm. rawatina ñaari fànn yi nga xam ne ñu ëpp solo ci xam-xam mm-hmm. uh, uh, mooy mooy fiq ak mm-hmm. ba mu ci noppee nag mu boole kook ñenn ay boolemi xam-xam nag mu mu mu jàng fa tuuti bokk na ci Xaadima Jaxate Kala jàng na fa naxwu jàng fa aruudu uh, ba mu fa jógee itam Serigne Mor Baraama Jaxate jàng na fa fa la jàngee Muxtasaru Cheikh Xalil foofu la ko jàngee sëñ bi tam daana ko jàngal loo xam ne daana ko jàngal xam ba yàgg mu ne ko taxawalul foofu mhm. li gi ba bokk dimbalee ko mbokkam <laughs> nga xam ne yaa lim jàngut lay gën a mokkal ci lim jàng waaw loolu moom waaw loolu loolu moom loolu moom baatin la moom moom mayug yàlla la wa anna al fadla bi yadillahi yutihi man yasha waaw moom moom <laughs> kiimaan la ni ko ni mu ko tarbiya nag tarbiya moom xam nga ñaari an ñaari rek la mm-hmm. ak tarbiyatu bil maqaal wa mm-hmm. tarbiyatu bil xaal mm-hmm. ñaari tari ñaari xeet tarbiya rek moom euh, moom sëriñ bi méthode yi yëpp dem moom jëfandi ko jëfandikoo ndax ak tarbiyatu mooy nit ki boo koy tarbiya mu nekk ak yow nga takkoo ak moom da koy wax muy dégg di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi loolu nag ci digal geeg tere googu ba ci biir loolu njàng ba ci njàngum xam-xam bi sax ci la bokk loolu ci at tarbiyatu bil maqaal loolu ci la bokk at tarbiyatul maqaal boobu euh, sëñ bi daana ko jëfandikoo ndax ku xool xam ne sëriñ bi daana bind na ay téere taalif ko te yëpp daanaka ay ndigal la yëpp ci murid yi la ko jëmale ndax moo ne woon warlool naa leen lépp lu aju mm-hmm. ci seen diine waaw mm-hmm. euh, nga ne kon taalif na bàyyi ba ne daana jëfandikoo lañuy wax ay tomb di ci génn ay xekkam tomb yooyu xëy na ñi nga xam ne seen ñoom mënuñoo jàng seen alluwa seen xel neexul ba mën a jàng eh, ñoom daan woo di leen leeral ci tomb yooyu nga xam ne mooy gën a neex a jàpp ay xikam la yoo xam ne si nii yàlla moo ko may mm-hmm. yootul xikmata man yasha mm-hmm. wa man yootal xikmata faqad utiya xayran kasiira mm-hmm. waaye at tarbiyatu bil xaal itam nga xam ne nit ki boo takkoog moom day gis ci yow day takkoog sëriñ bi mu gis ci sëriñ bi loo xam ne si saa ko ne jàkk rek mu am lu mu doole ci moom am donte sëñ bi waxut ak moom wala joxut yenn ndigal sax. dëgg la ñaari anam yi nag yëpp la sëñ Tuubaa jëfandikoo ci moom Jaara ndax ku ne xam na ne sëriñ bi euh, daana wax ne taq euh, defar dafa laaj taqoo. Mm-hmm. te moom dafa taqoo woon maam Jaara ndax moo ko wax Ibrahima allazi lam yufaariqnii mm-hmm. fii sigarihi wala fii kibarihi. dëgg la mos a taqali ko moom. Mm-hmm. ci ndawam ba ci magam. nga xam ne histoire leeral na ne biñ daan bi ñu seeti maam askamara maam Thierno Landor. Mm-hmm. dëgg la. fu bare bare bari ci réew mi waaw. Mm-hmm. ba muy sëñ Maam Mor Anta Sali itam gan googee mu doon gane ji ca euh, Pire tur wala fàtteeti. Mm-hmm. Euh, ca piir la ko doon gane ji. Euh, tur wala fàtte sëñ boobee. ba ko gane jee wax nañ ne ku tedd ki dafa dem ci àll ba seet fa garab gu baax moom maam Thierno ñu topp. am na nga xam ne kon yooyu day wane ne état boobu yëpp moom maam Thierno la moom dafa takkoog maam Thierno. dëgg la bañ nañ ko ba nee nañ ko tedd ki sax toolu nay jamono li mu daan xéw la maam Thierno ko daa yalwaani di ko indi. ko indi waaw dina bokk na ci tarbiya mm-hmm. bi nga xam ne ku tedd def na ko maam Thierno mm-hmm. wax nañ ne bis ku tedd ki na koo yalwaani loo mu dikk lañ ko yalwaan loo xaw a néew nee na sëriñ bi di ko di ko saytu ba xam ne ko ne ko da nga koo lekk. mu ne ko lépp mu ko sëñ bi téye ko bugg ko fitnaal mu ne ko taxawal may ma wax mu ne ko waaw mu ne ko euh, sëñ nga ma dóor ndax yaay sama kilifa waaye nag mënu maa taxawal lu mu dëgg <laughs> dëgg la <laughs> ah, nga xam ne loolu sëñ bi moom loolu loolu la bëggoon a xam ci moom boobu la bëggoon a xam ci moom mm-hmm. loolu la war loolu mu ko doon gëstu noonu waaye du caagi ne da koo bëggoon a fitnaal mm-hmm. waaye da doon gëstu ba xam di xool ak dëggoom fu mu hmm. la waaw kon nga xam ne kon sëriñ bi boo xoolee maam Thierno Ibrahima état bi yëpp yëpp yëpp génnul fenn sëriñ Tuubaa ko sëriñ bi waxee léegi léegi. Hmm. ci biir tarbiyatu euh, ak tarbiyatum googu tarbiyatu bil maqaalam googu am na ci ay bayit yoo xam ne si ku tedd ay ay ay ay ay yan yi la yan yi ay bayit la yoo xam ne sëriñ bi bindoon na ko maam Thierno di ko di ko ci digal. Hmm. Euh, yooya mën nañ caa wax. Euh, bu ñu xoolee ci euh, téere bi nga xam ne sëñ Xalil Mbàkke moom sëñ Moustapha Habsa moo ko bind euh, bind ko tuddee ko góor yàlla bi muy wax ci maam bi Birahim indi na ci wax yooyu yëpp am na fu mu koy waxee ne ko ñu ngi koy digal di ko di ko fàttali di ko jàjji di ko digal muy sax ci jàngale ginnaaw bi mu defee ay farataam ak i naafilam mu ne ko wa wa bi an nii amuru bi ay yastaxila baada alfaraidi wannawaafili warrawaatibi illa bitaalimi wa bi annahu in imtathala amrahu hada wa kullama amuruhu bihi irtiqa amuruhu zahiran wa batina nga xam ne mi ngi koy wax ne ko ci gàttal mu ne ko su fekkee def na lii ma ko wax te mooy jàngale ak mbooleem leneen lu ma lu ma ko digal mbiram dana yëkkatu dana yëkkati ko zahiran ak baat zahiran wa baatinan hmm. waaw loolu euh, benn la ci tarbiyatu tarbiyatul maqaal boobu mu seqoon ak mu doxoon digganteem ak sëriñ bi sëriñ bi itam daan na ko digal tudd yàlla ndax hmm. xam nga yàlla wax na ci alxuraan wala zikrullahi akbar hmm. waaw ah, euh, tudd yàlla moo gën a kawe lépp loo xam ne doomu aadama bi mi ngi koy sàkkoo jegeñ jegeñ lu yàlla mi koy sàkkoo jegeñ loo yàlla mm-hmm. foofu nañu taxaw ci tuuti wax tuuti rek leeral foofu ndax jamono joom day jamono ji day waar joo xam ne mën ngaa wax loolu rek benn mbokkum taaliba mu xër ci sëñ Tuubaa xëy na sax ab këram rek ay tax ak ñàkk xamum waaye tax moo toog fee jàpp ne bu tee ay xasa itam di jàng waxtu julli jotee bu ko neexee ba ñu julli ji waaw ndax boo xoolee la jiitu ay ba inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar dëgg la julli day fekk euh, ay ñaawteef ak lu ak ak i bon bon ak lépp luñ tere daal maanaam mm-hmm. waaye nag wala zikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a kawe kon day mel ne kon tudd yàlla gën a mànk day mel ne dañoo mm-hmm. dàqante ñoom ñaar te pourtant mm-hmm. dàqante ndax julli tudd yàlla la waaw ndax julli ci boppam dafa am tudd yàlla amaale leneen lu dul tudd yàlla Mm-hmm. kon lool lool lool ñu leeral foofu moo tax sëriñ bi waxoon ko ne ko waqad azintu lahu bi ma ajaalu bi yadihi min alawraadi baada yowmi kitaabati li haada daan ko digal muy dimbali nit ñi tam lu man loolu itam daan na ko digal yooyu yëpp xam naa ne ñu may wax ne ma waxtu bi jeex na takk takk takk takk xam nga <laughs> maanaam liñ ah, bi ah. liñ ci ah. liñ ci bëggoon wax nii rek ci jataay bi waxuma la sax matale waaye du genn wàll ak dundu borom daal sax euh, te te liñ ci bëggoon wax rek maanaam andiwuñ daanaka dara ñëwu ci rek man nga daanaka ouverture moo ci ñëw hmm. euh, ma bëggoon bàyyeeg suñu xaadim mu hmm. wax kàddoom bu mujj hmm. lan ban message lay lay lay lay wax mbokk moom waaw xanaa sant yàlla bu baax. noonu euh, bi ñuy waxtaan dama la wax ne suñ bi day wax rek ñu ngi ci taalix dañ moom lañ doon def rek. Mm-hmm. ndax noonu lañ ko defee moo tax. Euh, baax bi am na solo lool ni ko tënkee tartib bi am na solo wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko lool macha allah. Ah, loolu it lu am lii rek moo baax. Mm-hmm. ak màggal la. Ah. màggal boo xoolee. Mm-hmm. Euh, bés bi dajee ak Serigne Touba bu Serigne Touba dikk ngërëm la woon. waxtaane ko waxtaane feeñal ay jalooreem. yi nga xam ne def na ko waaye ni mu àndee woon ak kilifaam mm-hmm. ak li ko ci yàlla defal mm-hmm. ñu xam ne kon ànd ak kilifa mm-hmm. am na solo waaye bëgg gaaw a def kilifa ba tax la la warloo sa diggante ak sa kilifa doo ko matale yoon wi xamu ko mbokk gi xamu ko euh, suñu borom it baaxoo ko defee kon xëy na ñu ngi xiirtal ndaw yépp ci ci ci li nga xam ne ñoo noonu la ñuy waxtaane nu xam ne doon gone du tee am jom benn bés mooy topp kilifa. lu mm-hmm. tee am sab cër. baaxut. Euh, te muñ it ak gore ku ko def yàlla dina la jàppaleel boppam. beneen bi ci des mooy lii sëñ bi wax nii modèle ngu noonu boo xam ne ku ne ni nga bëgg a doxee ci yoon wi. Mm-hmm. war ngaa mën a wut koo xam ne da ngay ne man diw sàngam sama modèle la dama koy doxee. dama koy doxe am na benn bés maa ngi fàttaliku ay ñetti at wala ñeenti at ci ginnaaw. Euh, màggalu daaru damaa toog ba bëgg a def baax ci moom. Hmm. ci fajar gi wala ci guddi gi daal. Hmm. dama toog ba commencé bind rek mënatuma ko. julli sax bi ma koy def damaa damaa jooy ba sonn xamul dama dem ba ne dama dama pour sama xol rek bi mu bi mu bi ci moom rek ci laa xam ne maam Thierno benn affaire la. waaw loolu nag ndegam loolu ngay def rek pour jéem a am ci moom lenn loo koy liggéeyee lenn lu tuuti rek te muy dëgg ci yow rek. yàlla mën laa may loolu nga yëg ko asamaan nag euh, koo xam ne kii tabaakala yaa ngi dund tafaatoo boo yor kàttan yor nangam mm-hmm. xel yi buñ ko jëmee ci àdduna mais nañ ko jëmee ci mag ñu baax ñooñu mm-hmm. kon nag jamono jii maam noo tege ci taabal yi nañ leen ko jàngat jàngat goo xam ne dañ koy jàngat jàngat roy mm-hmm. bañ xam ne moom ndax noo ko noo ko yëkkatee rek xam ne Sëñ Tuubaa amul morom. dëgg la waaw loolu doyoon na. jërëjëf kon ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax. sëñ Mahfouz bàyyi la ah, nga wax sa kàddu ah, ak message bi nga xam ne bëgg nga koo wax. Mm-hmm. mbokk yi ci waxtaan bi nga xam ne mm-hmm. doon nañ ko waxtaanee borom daal. Mm-hmm. bismillah kon de xam naa ne ñoo ngi jégalu tam mbokk yi bu baax a baax ndax niñ ko waajale woon. ah wax dëgg yàlla bëggoon nañ mu faw ko njort nii ndax xam nga dund maam Cerno mooy lu yaatu loo xam ne. xëy na sax méthode bi ñu ko jëlee woon bëgg ko jëlee noonee Mm. moom daanaka plateau bu mag a mag lay yor daal di doon mm. luy laaj ay waxtu yu waxtu mm. loolu nag ñoo ngi ciy tuubal mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi koy ñoom ñu doon déglu bu baax euh, ndax point yi ci waroon wax bari na lool bari na lool ndax euh, ni ko ni mu daan tarbiya taalibe yeeg mm-hmm. dëkk yim sañcak mm-hmm. maanaam yim réalisé ak njàmbaaram mm-hmm. yi nga xam ne xikam yi nga xam ne am na ko Euh, daana ko faral di wax ñu baree baree baree bare bari la waaye nag ñu ñu ñu ñu jël ci lu ndaw loo xam ne moom bref rek lay nekk hmm. euh, muy lu essentiel loo xam ne soxla woon nañ ko ci jamono ji mooy ni ko sëñ Xaadim Njaay waxee léegi fi mu ko daanelee fi laa ko yëkkatee benn ba mooy am kilifa hmm. benn ba mooy nangoo liggéey ba ca topp mooy gëm yàlla gëm gëm gëm gëm gëm gëm gu dëgër. gëm gu dëgër. te dañ ko soxla ci suñu jamono jii ñun jullit ñëpp waaye rawatina noonu murit ci Sëriñ Tuubaa dañ koo soxla woo. ndax bu ñu tey maam Thion li mu daan liggéey maam Thion ñeen fukki kilomètre carré daan ko bay. te boobu machine amul loxo lañ daan bàyyi. dëgg la waaw ñeent fukki kilomètre carré. waaw ci nga xam ne moo jiite woon tool yi wax na sëñ Bass Anta ne ko ay toni toni toni ton lañ daan te nee na bu masaa ñor ci am kilifa foofu mosaa ñëw ñoom doo ngay duñ ci lekk dara ak njabootam duñ ci lekk dara lépp noonu lañ ko yëkkatee jox Sëñ Tuubaa fu mu masa nekk itam ndigal la Sëñ Tuubaa la fa nekke ak jaamu yàlla lu mën a nekk itam ba ndigal la Sëñ Tuubaa dikk mun na fa kupp loola dem wuy ji nañ ne sax am na ba mu nekkee ca xàbbaan ñu fa sëñ bi masa yabal bi mu ñëwee ba nuyoo ñoom jàmmanteeg ñoom ñu ne ko sëriñ bi ñu yabal moo la woolu moo daal ni kon xaaral ma dugg ci biir jël samay bagage Eh, ngir ñu ne ko ah sëñ bi danañu woon foo xooleen ko man a fekk nee ko maanaam bu mu soqi benn jéego jëm feneen furu si man dëgg la eh, foofu la taxaw yónnee fas yi ñu indil ko ko mu war waaw nee nañ te bu ko sëriñ bi mm-hmm. waaw bu ko mm-hmm. ko sëriñ masaawoo bu ko sëriñ bi masaawoo ah, day jël mboolem ay bagaasam yóbbaale ngir ngi ngir jàpp ne moom day ñibbi ci waaw noonu noonu la meloon kon nag kon nag message boobu lay jàllale mm-hmm. ñoo xam ne ñun liñ am ndono la ndono lu mag la mm-hmm. am nañ ay kilifa yu mat royukaay kilifa yooyu nañ leen roy mm-hmm. waaye nañ xam ne jamono yàqu na fi mu ne ndax euh, euh, média euh, tasaaroo na internet bi a fi ne xas lu nekk a ngi fi te tubaab yi wala ñeneen ñi ngi ci jaarale seeni xalaat fexe ba yow mi nga xam ne yaay murid murid saadix bi ñu fexe ba dox sa digganteeg li nga xam ne moom mooy mooy sa mooy sa muccug àdduna ak àllaaxira mooy gën gi nga gëm sëriñ bi nekk taalibe sëriñ bi nekk taalibe bu dégg digg tey tey tey tey bàyyi tere nekk taalibe boo xam ne fu alal yoo am yëkkati ko jox ko sëriñ bi mu ñu ñu delloo ko ci lislaam mu fexe yow ba dox sa digganteeg loolu fexe ba kon ba jaxasal ak sëriñ bi fexe ba sikk sàkk loolu ci sëriñ bi lu sëriñ bi wax nga sikk sàkk ji lu sëriñ bi jëf nga sikk sàkk ji loolu nag loolu nag loolu nag fi ne jàpp nañ ne xel yee toll foofa hmm. waaye ñoom seeni xel dépassé na suñuy xel ndax ñoom li def mooy li tubaab naan diviser pour mieux régner ñoom loolu doomu la ñuy def fi ma ne la waaw diviser pour mieux régner kon nag loolu nañ ci bàyyi xel xam ne noonu lii ñoom mooy doona lu baax li Sëriñ Modaw Ball nag daana wax ne na ngeen jël seen diine ngeen ruux ko ci seen bañu ngeen dugal ko ci seen bañu ruux seen te ngëpp ci bu dëgër lu ko mooy jamono ngi ñëw danañ ñëw loqati ko foofee mu nekk sànni ko te doo ci mën dara kon nag loolu lay daanelee kàddu yi maa ngi tuubal ñëpp lépp lu ci euh, lépp lu ci euh, dëng itam ñu xam ne sunu ñàkk xam-xam képp la mm-hmm. ah, waaw waaye nag lépp lu ci jub itam ah ñu xam ne tawfiixi suñu borom la rek wa maa tawfiiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Mahfouz hmm. jërëjëf Serigne Khadim am nañu mbégte lool ànd ak yéen jotaay bi ndax defe naa ne xam-xam feeñ na ci hmm. mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp ci jotaay bi yépp hmm. li ñu bëggoon wax ci borom daaru xëy na ci jotaay yi di ñëw ak ci màggalu daaru moxti yi dina am yeneen jataay yoo xam ni xëy na dana dana gën a ñëw ci biir dundu borom daaru moxti kon mbokk yi xam naa la leen tax di daje insha allah jërë jëf ba muy xale la dal ànd ak Bamba yërëy jikkoom yaag jéegoom yaag tànkam ya Bamba ko jàngal moo ko def kaang foore jàngal na ay foore tomas la doore ray ray lu saayir sa dixen baatin ba fu mu yenee ku tiiñu fab yanam ba xolam bu jébbalu ba ak tabeem ga ak dëddoom ga ak ñambaar ga yaaram ga ak samoom nga ak maanoom nga ak doyloom nga muñam ga ak wàkkirlu nga ak wooloom nga